mbokki suñu xalaat TV mbokki téléspectateur suñu xalaat TV ba ñuy wër seen contentement nan leen moom mooy suñu mbégte ba tax na ni ñu ngi stade arène nationale de Pikine fas yéene leen a tegal combat bi nga xamante ne ni moom moo dox ci diggante Tonnerre ak Tony Junior di grand combat drapeau Maguette Mbaye journée Diender production Abdoulaye Diakhaté sant nañu la gërëm nañu la sa journée macha allah neex na tonton Abdoulaye maa ngi lay nuyu waaye kenn du king ñaari mbër yaa ngi nii ci digg géew bi kenn ku nekk di def sa dernière débat dem kenn ku nekk ci dernière mystique am madame Catalina nuyu naa la kenn du yow. lu ne la ñuy wan ci soo king bi. mu ngi ñuy rey maanaam maanaam da ngay wax ba jàpp ni mënatoo bu la laalee king ba nga laaj ci deux gorgées yu baax. nga gën a mën a xotteeku. maanaam da ngay déclenché wu waat. xanaa gisoo di wax lu sa yoon nekk ak lu sa yoon nekkul. moo tax foo ma fekk damay am énergie la may jël ci ki nga bëri. ah illallah. maanaam king bu la bàyyee nga yuuxu cinq combat mu ne cinq combat laa leen deux gorgé waaye maa ngi nuyu sama gaynde gi moom it di baax di ko gore di ko am yërmande di ko bëgg njaboot ngay maa ngi lay nuyu suñu xalaat lay bégee waaye ñaari mbër yaa ngi ci digg geew bi kenn ku nekk yaa ngi ànd ki yor say débat dem arbitre yaa ngi ci digg géew bi ma ni bii mooy grand combat bi. dox ci diggante Tonnerre ak Tony Junior drapeau Maguette Mbaye dernière journée Diender production c'est dimanche 11 août 2024. madame Katrina borom ci bëgg naa déwén mu ñëw gunge ñu production maanaam ñu def saison bu am solo madame Katrina déwén na ñëw ànd ak Ousseynou Laye production ñu def saison boo xam ni saison bu doy waar lay doon. c'est normal yaakaar naa ne moom moom loolu moom du ko bañ na fii soo xoolee promoteur bi nekk yëpp. waaw mi ngi ànd ñoom mi ngi ànd ak ñoom. madame Catalina kon Ousseynou Laye production tàllal na la loxo di la woo pour déwén saison 2024 à 2025. di tàllal loxo sponsor yëpp nag maam sponsor yëpp déwén nañu ñëw ànd ak ñi nga xam ne Ousseynou Laye production loolu day am solo. Ousseynou Laye moom mu ngi waajal saison 2024 2025 di woo promo di woo sponsor yëpp. di woo madame Catalina. mi ngi woon mi ngi woo madame Catalina di woo sponsor yëpp di leen wax ne nag déwén maanaam ñi ngi waaj ay xale yoo xam ni bis bu Ousseynou Laye ñëwee li muy waaj déwén. déwén nee naa la déwén nee naa la Ousseynou Laye dafa nar a ñëwee ak boo xam ni tarkaal la. ma ni ko bés bu laayeen bi ñëwee ci stade bi bés bu laayeen bi ñëwee ci lamb ji ñëpp dinañ wuyoo Laay Maxtaar di gis loo xam ne bés bu laayeen bi ñëwee Laay Alassane gis lu musa am Laay Seydina kon kon kon kon ñi ngi woo ñi nga xam ni ñoo di sponsor yi nañu ñëw ànd ak laayeen bi ñu liggéey jàppale ndaw yi jàppale xale yi nga xam ni lamb da leen a yaakaar kon laay laay kon ñaari mbër yaa ngi noonu ci digg géew bi mbokk yi Tony Junior moom moo des ci dernier débat déeb arbitre bi nee na ko nga gaaw ma xool ñaari mbëri ba xam ndax nin nañ wala niinuñu di woon nañ diwlin wala ba xam ndax saafara yi amul lu mu rax lu niin. ndeysaan loolu dafa am solo parce que mbëri aussi ay saay saay lañ yoo xam ni yooyu boo ko dul bàyyi xel lu ne mën naa xew ma rax loolu lu am solo la comme ça bu ko defee bu ñu jàppantee ñu mën a bëre. waaye euh, kii nga xam ni mooy tonnerre ma gis ko tonnerre moom tey ñëw na mais yow ci sa gis-gis lan nga jàpp ni moom la tonnerre indi Touré Junior depuis boobu ba léegi gis nañ ah, mouvement yi nga xam ne mi ngi koy def daw na fi ay 100 mètres yoo xam ne nee naa la ah, mbër mu liggéeyul du ko def moo tax te Tonnerre aussi dafa mel dafa xaw a diis. comme li ma la wax Tonnerre jël na poids ci combat bi Tonnerre jël na poids waaye tamit indi na ngem respecté na bis bi fonk na bis bi nii daal maanaam moom moom pare na arbitre bi lay xaar waaye Touré Junior tamit da di xale bu sawar xale bu mën a bëree di ndaanaan arbitre baa ngi xool ba xam ndax niin nañ wala niinuñu ñu ngi xool waa pour l'instant xeex mu nagu loo am kenn ku ne day déglu moromam ba ci kanam buntu doog a feeñ ñoom ñaar ñu ngi dox di jëm ci digg géew bi combat social. waaw loolu waaw bu dee ne ñaari mbëri. Tony bu fekkente ne dañoo xeex. Tonnerre mun na koo sax dóor mu daanu Tonnerre mun na koo yóbbu Ardo mais bu fekkente ne tamit dañoo jàppante mun naa doon avantage Tony Junior ndax xeexat la ñoo ñaar cokkaas na gis nga li ma la waxoon Tony Junior dafa sawar bëgg naa jël si suuf mun na koo jumloo arbitre toogal ñoom ñaar jàppante nañ ña ngay xeex ña ngay demee Tonnerre Tony Junior dernier combat de la soirée du grand combat drapeau Maguette Baye lii la la na demul Tony Junior Tonnerre Tony Junior Tonnerre ay ponkal nañ moo taxit nee naa diis star bi jug nañ taxaw amateur yi yuuxu lamb neex na na Ablaye Diakhaté kontaan na ndax xam nga ni grand combat bi grand bi mooy grand mooy grand lii la ñëpp bëgg. lii di wër. ndax kii di Tonnerre. min na géew. bëre na ak ku ne. waaye kii di Tony Junior. toj na mbapat yi tamit. Tonnerre kon waaw. Sa Thiès. waaw. champion bu am naa yow takusaan. bëre na ak musa Ndoye. Moussa Ndoye. bëre ak Moussa Dioum. bëre ak ñoom Balla Gaye. kon Tonnerre champion la. Tonnerre waaw champion. mais Tony toj na mbapat yi. Junior tam di ndaw loo xam dafa te day wër di daan. te nee moom ak tonnerre buñ jàppante dëgg feeñ. bu nekkul woon mbirum feeñ. ñoom ñaar da nga ko tàkkal ko Tony Junior na tonnerre jël bu rëy. allahu akbar. lii mooy quel chute quel na ko top 5. tonnerre moo. mais chute moo déclenché action daal di kal tonnerre tonnerre ne ko noonu du baax dama lay ñëw fekk ci ci loolu far yàlla mu surux kon Tony Junior lii la doon wax léegi dafa sawar nee naa la daa sawar. day jël li ko jox ba wecc la mbëru mbapat foo ko mun na cee génn fu mu la àgg mun na laa daa grand ngi noonu drapeau Maguette Mbaye Tony Junior jël na ko ci kaw Tonnerre Tony Junior mu ngi noonu di dem Tony Junior a ngi ci digg géew bi di def di julli di kabar di sant yàlla suñu borom nii la lii mooy làmb jaaraama Diender production merci beaucoup Abdoulaye Diakhaté merci beaucoup madame Catalina borom King jërë jëf mais dara ñoo gën a féete xale. Ah. bu def dara ñu ñoo taxaw ñoo def lépp. risque yi doon daanu ñoo def lépp. doon daanu ñoo def lépp. Ah. yegg na la fu sori xaw na la ci làmb boo amuloon résistance doo ci génn. looy wax foofu. làmb ak loolu ñoo ànd. Ah. ñun duñ foo si làmb. condition ku xam xam ne entraînement. fii laa koy waxee billaahi wallaahi